maa ñëw tey bëgg a waxtaan ak yéen yàgg na loolu ñëpp ñu may laaj ana Adji Sarr ana Adji Sarr mais pour man c'était pas le moment c'était pas aussi le bon moment ñu bari ñu ma doon laajte ana Adji Sarr dañ ko nëbb ana Adji Sarr dañ ko kidnappé ana Adji Sarr yóbbu nañ ko Gambie ana Adji Sarr defal nañ ko visa ak passeport mu ngi war voyage pour xamal leen rek nekkuma woon fenn fu fii nii si dakaar man mii ma parewul woon pour recevoir kenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi ma doon bëgg ñu ngi bëggoon gis walla ñu ngi bëggoon wax ak man maa ngi doon gis tamit ñi nga xamante ni ñu ngi doon def tout pour gis ma te leen xamal ne tamit nekkul woon lenn moo taxoon ma tey sama bopp mais dama foogoon ne c'était palo le moment pour ma wax ma gis kenn walla c'était pas le moment pour ma wax ak kenn. te parewul moo woon tamit pour wax ak kenn maa ngi remercier suñu kilifa diine yi maa ngi gis wax ji maa ngi gis tu maa ngi gis lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def mais pour man dafa nekk loo xamante ne mënu ma ko woon continuer du muñ wala mënuma ma ko woon bàyyi mu sedd comme ni ko ñëpp bëggee woon te di leen wax ne tamit ba may defi lii aw ma ci woon benn intention ko Sénégal traversé moment yi nga xamante ne traversé na ko te loo xamante ne jaru ko sax woon ci loo xamante ne affaire de morceau la woon benn sénégalaise lañ toog mu dem porte plante am na loo xamante ne waru ci fa woon sax egsi may baaluwaat bu baax di leen jaalewaat di baalu àq bu baax a baax a baax a baax te xam leen ni tamit bu doon sama sago du ñu am sax blessé bay am ay mort maa ngi jaale famille yépp képp koo xamante ne ñàkk nga ci sa doom wala sa rakk wala sa baay wala quelque chose comme maa ngi lay baalu ak di la ñaanal fa nga jëm yal na fa yal na la yàlla xale arjànn wax bi nag du gudd du gàtt ndax euh, lu nekk dégg naa ko tamit mu nekk loo xamante ni metti na lool nga nekk xale bu jigéen ñu lay waxal li nga xamante ne waxal la ba waxal la loo xamante ne sax amaana mosoo koo def xamoo ko mosoo koo dund maa ngi doon dégg ne aji dafa dof maa ngi doon dégg ni aji aji saar caga maa ngi doon dégg ne taxawaalukat la maa ngi doon dégg lépp mais lépp ma toog di ko muñ pour ñëw rek pour euh, leeral yeeg Sénégal léegi ci benn mbir sama liggéey ci Sweet Beauty ak ni ma xamante kii nga xamante ne mooy ni ngeen ko xamee muy Ndeye Khady Ndiaye muy Ndeye Khady njaay ñu gën koo xam ci finaa wala Estella Ndeye Khady dafa nekkoon nit koo xamante ne mën naa wax sax dafa sori si man ba lu muy wax si man sax instant bii nii mënuma gëm ne moo nekk di wax parce que lu nekk dund nañ ko maak moom lu nekk defal naa ko ko lu nekk defal na ma ko parce que nee na nit ki tamit loo ko bañ bañ. nga waxal ko li nga xamante ne moom moom la moom day xadi sama benn xarit moo taxoon ñu xamante sama benn xarit mënoon naa wax ni sax kooku sama mag moo boole woon ak moom kooku moo ko doon liggéeyal boole ma ak moom ñuy liggéey di liggéey ba kooku arrêté bàyyi ne ma yaa ngi continuer de waaye léeg nga arrêté ñu nekk di nekk di nekk ba mu benn jour mu ne ma sama cabine wóolootuma ci kenn ku dul yow ma bëgg rek nga liggéeyal ma te yàlla tax te nga xam ne fii dañoo jubut te instant bi li ma jot a gis ci yow doy na ma ne ma léegi à partir d'aujourd'hui client bu ñëwati yow yaa koy teeru client bu ñëwati yow yaay waxaale ak moom yaa koy dugal après mun nga wax beneen fii bi mu dem maase ko mën na ko ah fii yi de bëri nañ mais comme da nga gis ci man confiance ba dénk ma sa li nga xamante ne mooy sa liggéey yàlla bul mës a am mbégteel ci man wala yàlla bul mësa am lu naqari ci man mu nekkoon nit koo xamante ne tamit ku naa woon la koo xamante ne ay qualité qualité yu ma gisoon ci moom gisoon naa ci moom ay qualité yu baax a baax yoo xamante ne bëgguma woon lu dul dëkk ak moom à vie parce que dafa doon dëkkal ci samay nopp ne nit ki loo am rek ak nit ki loo munti am ci àdduna te àndoo ci ak sa ngor wala nit ki loo ti am ci àdduna te du sa ñaq bu yeboo nga dem xoolaat sa bopp te liggéey bii ñuy liggéey du ma ne baax na de mais maa ngi ciy suturloo di ci dimbale ñi ma war a dimbale te man gis naa ne ku sérieux nga moo tax ma mun laa dugal sama nekk di waxtaan ak yow maa ngi dégg na ci benn côté muy naan moo ma booleeg Sonko Ousmane Sonko. ci beneen côté ba mu ne boolewuma ak usmaan Sonko ma koy naan tey de mun naa wax ne tey won nga ma loo xamante ne amaana dama ko doon ignorer ci yow amaana bëgguma ko woon gis amaana ñëpp waxoon nañ ma ko sax ma ne noonu loolu dëgg mun naa wax ne tey tamit bëgguma sax gëm ne. ki xale bu jigéen bi may dégg muy wax ci télé yi muy wax ci internet bi bugguma sax gëm ne yow la parce que mën naa wax ne lu bari lu nekk ci man yaa ko si def ci man tey su ma baaxee yow la tey su ma bonnee yow la parce que lu bari mën naa ko ci milieu massage walla mën naa ko ci milieu bi yow yaa ma ko def loo lu bari xam naa ko yaa ma ko def loo yaa ma ko jàngal kon bu buñ toogee tey ba nga olbatikuwaat di yàq sama der kon day nekk loo xamante ne mbégteel lay doon ci man Ndey Xadi nee na man dama mën a dul Ndey Xadi nee na jubuma ko def ma dàqoon ndax dafa amoon rumu remarqué ci li euh, ci man loo xamante ne clients yi dañ ma doon dañ ma doon lii nii may wax ne boo nekkee sa fii sa élément muy liggéey nga présenté ko say client client yi bëgg ko mu nekk fierté ci yow ba client bu client bu dul client ji ne bu ñëw da koy woo même bu duggee sax si si di liggéey da nga koy woo téléphone na ko génn kee ñëw na dafa am xaalis demal nga def lu tout pour mu fay xaas bu bëri ba maa ngi dégg sax muy naan dàq na ma benn yoon mais mosuma dàq day xaddi mosuma dàq bu ñu ko xamul xam naa ay cli ay clients yu bari ñu ngi taxaw di ma dégg Fina lañ xam wala Estella Fina mosuma dàq suma premier problème ak moom fenn la woon mooy dama duggoon jacuzzi si pour ñu ko xamul genre baignoire la boo xam ne da nga ciy def ay ay produits mu xëpp dama duggoon jacuzzi jour boobu client boo xamante ne 40 000 la fayoon parce que jacuzzi 40 000 la te si booy dugg ku góor ki day def nu yow ku jigéen ki nga def deux pièces ma dugg ba mu parce que jacuzzi une heure de une de temps la léegi cinq minutes yi nga xamante ne moom laa waroon seq ak euh, client bi. pour ci accompagner ko si lii bi si jacuzzi bi kuule na mu des 15 minutes yi nga xam ne ci la war a préparer dem sangu ji pour ma vider jacuzzi bi mu sol yére ci 15 minutes yooyu la ma woo téléphone ne ma kili am na client bu ñëw mu ngi si porte bi te nee na bëggul keneen ku tijji ko ku dul yow ma ne ko waa d'accord ma ne client bi maa ngi ñëw daa am lu may def après ci la ko client bi woo ma dem tijjil ki beneen client bi dugal ko client boobu jour mu ngi fay 50 mille ma woo ko ne client bi de cinquante mille la fay te mu ne ma ah waaye garaawul au moins sax yokku na beneen client bi ba woo ko téléphone na ko ki ki ma lii de ma def ma fee bàyyi dem yoonam léegi mu bëgg bëggul ñàkk client bi nga xamante ne fay na quarante mille te maa ngi dugg ak client bi nga xamante ne moo yoroon moo fayoon cinquante mille léegi ba ma génnee mu ne ma pour client bi pour ma bañ a perdre client bi damay obliger licencier la si sa kanamam ma daal di ñibbi mu ne ma waa kon d'accord ma mu licencier si kat ci guddi gi. ma ñibbi woo ko téléphone ne ko Fina li nga def noo ko mënee ak client bi lu mu la mënti wax yow ma nekk ak yow di liggéey xanaa sax yow nga may ma au moins ma expliqué wala quelque chose comme te yow li man client bi bu fekkoon ne sama coobere moo tax ma génn mais yow yaa woo téléphone ne ma génnal nga dem nga dem euh, marché ji kii beneen client bi yow la soxla ma génn mu ne ma noonu du loolu ah d'ailleurs sax suba boo xëyee rek ñëwal bul fay sax taxi bi maa lay fayal taxi dama bëggoon kese client bi foog ne comme dañu dañu dañu lii daal dañu professionnel sur suñu liggéey te ñu duñu fooy nit parce que client yi tàmm nañ benn affaire client bu ñëw tudd bu mënti dugg ñi maase wax xam nañ li may wax boo leen euh, defaru sa massage nu mu waree attan nañ dugg sa douche wala lii nii caméra ko dugal ko sa page pour yàq mu ne ma te man aji man du ma nangu kenn ku may yàq sama liggéey ma ne ko kon baax na waxul war sax man aji dafa wax ne Aïcha parce que man Aïcha lañ ma doon woowee foofu mu ne ma du ma nangu kenn ku ma yàqal sama liggéey ma ne ko ah kon comprendre naa waaye suba boo xëyee na nga ñëw liggéey ma ne ko waaw ma ñëw liggéey si mu nekk mu yóbbu ma si beneen cabinet bu bees ne ma yow sax fa laa lay gis naa ne mën nga apporter nit xaalis te gis naa ne mën nga sa liggéey te boo fa demee comme que cabine boobu cabine bu bees la dina pare nga nga yëkkati ko mu génnee xaalis ma ne ko waa d'accord ma continuer directement si beneen cabine bu bees ba ba ma demee foofu toog foofu ba mu yàgg après ma ñëwaat si biir kër gi ba mu ñëwaatee si biir kër gi ci laa xamante ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu dem di liggéey di dem di liggéey ba benn jour premier jour bu Ousmane Sonko di ñëw ci kër gi fekk fa woon ki nga xamante ne mooy final te moom nee na saa yu Ousmane Sonko ñëwee moom mooy booleeg moom waaye saa yu Ousmane Sonko ñëwee ci ay waxam du ko yëg. nee na Ousmane Sonko tabaski 2019 la fa njëkk a ñëw te lii la fa indi woon nu ñu koy waxee manti laa tam frotté frotté bu baax la indi woon waxaat ne Ousmane Sonko bu ñëwee foofu noonu day muuru day toog muuru ne Ousmane Sonko tamit bu ñëwaatee foofu bu ñëwee foofu noonu du bëgg sax kenn gis ko walla du bëgg sax kenn koo xamante ne kenn du ko xàmmee ma leen di leeral kàddu yoo nga xamante ni gis na ma trop ma la koy wax mais loolu yëpp du dëkk Ousmane sonk mën na faa ñëw ba des te moom sax du ko teg bët mais ñoom ñaar dañuy déggante. may wax ne nee na 31 décembre Ousmane sonk ñëwu fa 31 décembre moom de jour 31 décembre la am doom beneen fii bi ñibbi ma beneen fii bi ñu toog foofu noonu moom mu ngi woon hôpital parce que jour boobu la am doom. te moom nee na mu ngi woon suñu kër 31 décembre te moom jour 31 décembre la am doom ndax maa desoon si kër ga même sax beneen fii bi doon ñibbi mu ngi naan yéen des leen fii rek ñu mel ñu ngeen mel ni jouru feet ngeen war a dem seen kër yi feetu ji mënoo leen sax génn kër gi pour naan da ngeen di feet nekk fi di liggéey te ngeen xam ne tey du gis kenn du ngeen gis benn client parce que ku nekk ànd nga ak sa jël ku nekk yaa ngi feetu ak say famille ñu ne ko noo garaawul ci guddi googu noonu la Ousmane Sonko ñëwaat na foofu noonu 31 décembre boobu ñëw na foofu noonu ba jour boobu sax moo may moo ma moo may beneen fii bi nga xamante ne bokkoon naa ak moom xaas ba mu jënd ji ay pétard taal ko ci biir kër gi moom nee na après laa ko woo téléphone pour ne ko damay dem sama kër juste pour xamal ko ne mënoon naa laaj ndax jour 31 décembre samay waa kër nekkuñu woon Grand Yoff dañu demoon seen dëkk pour feetewu ji ak seen yaay ba jour boobu sax maa ngi leen di woo ci guddi gi ñu may xas ne ma yow daal nee nga yow liggéey liggéey liggéey ba kañ ba sa jour fête sax mënoo ànd ak say say njaboot dem feetu ji ba may naan yaay comprendre leen ma rek jour boobu noonu mën nañ dem Grand Yoff laajte ku mu neex ndax jour 31 décembre samay waa kër ñu ngi fa woon te nee nañ deux jours à part dem naa su ma demee fan laa jëm sama suñu waa kër jour dañoo 31 ba pare doog a ñibbisiwaat lii dem leen Grand ñu xaar yàlla ngeen laajte sama yaay fa mu dëkk bu fekkee ne jour 31 décembre suñu waa kër yëpp ñu ngi fa woon kenn moo fa desoon muy sama mag lenn moom kese moo fa desoon ñu waxaat ñu demaat ba mu yàgg mu ne le 11 le 11 décembre tamit ba fa Ousmane Sonko ñëwee moom moo génn Ousmane Sonko dafa sonni dem dem yoonam moom mu profitoo fekk beneen fii bi mooy dem tijji mu profitoo kooku da koo tijji gis mu avancé mu ñëw ne ma jarul sax may sonn parce bu duggee bu duggee. bu su ma ko dugalee rek te mu waxaat foofu ne yorul xaas day ñibbi parce que bu xamee ne du yow day ñibbi demal rek comme gisuma demal rek nga ci jël ko après moom ci la dégg loolu génn ne Sonko la yow lay laaj bu nekkul li ngay xam ne damay bañ ñooñu tey am problème wala damay bañ ñooñu seen famille xam ne dañuy liggéey massage kon tey mun naa tudd seen tur mais duma ko def parce que amaana sax ñooñu bëgguñu benn fii buggul di liggéey massage seen waa kër ko xam. ma ne ko encore ah baax na après ba mu ba ma ko tijjilee taal samay bougie ñoom moom fi mu ngi tëju si néegam ne ma jour boobu nu bul bul fexe ba mu xam ne maa ngi ci kër gi wala bu xamee maa ngi ci kër gi attan ah na dem yoonam mën na ko non t'inquiète moom pour man instant bi man kese maa nekk si kër gi mu ne waa d'accord ma dugal ko jour boobu ne Ousmane Sonko cinquante 000 la fay te 4 mai 40 000 la 50 000 la fay 50 000 yëpp laa jël dox ko Fina. finaan ne ma waaw lu tax mu joxe cinquante mille ma ne ko ah laaj naa la ko def cinquante mille la mu joxe mu ne ma comme 4 mais yi quarante mille la bàyyil ma jox la li nga xamante ne mooy dix mu jox ma dix mille ma jël xaalis bi joxaat ko beneen fii bi parce que mosuma bëgg san mu moom xaalis boo xamante ne saa yu ñëwee foofu jox ma ko mosuma bëgg laal ci benn dërëm balaa muy mel ni que lu muy def seq ak man def def nekk loo xamante ne daf ma ciy jaay wala dama ciy jaay sama bopp boobu bañ ko bañu maasee ba pare fii bi génn bàyyi waaj mi foofu noonu ba mu paree daa dem fii bi génn ne ma noonu mënuma gëm ne Ousmane Sonko ñëw na fi ba dem te may may ñu benn dix mille franc maa ngi ko ah léegi bu fekkee ne poosam foofu la toll nag mënuma noonu gëwuma loolu yàggul dara fii bi dem yoonam après ma woo ko téléphone ne ko yow Ousmane Sonko ñëw na fi de may na la vingt mille franc muy naan wuy sama ndey waatal man kay xamoon naa ne sonk moom moo ngi doon tagg Sonko sama téléphone laa ko doon te sama téléphone lay enregistré xamoon naa ne sonk bu fa ñëwaatee def may may man leer na ma ne may na la parce que mënu seex ak yow ba pare may mayu ma xam naa la takkatu diir nga tag xel nga moom mooy wax loolu xam naa la ma na ko billaahi wallaahi tàllaahi Ousmane Sonko de mayu mooy jour boobu noonu dara du à part 10 bi nga xamante moom la yëkkati jox na ko te 10 000 boobu noonu final laa ko joxoon final moo ñu ko joxaat maa yow mu ne ma ah kon baax na boo ko waxee de gëm naa la mu ne ma kon baax na léegi envoyé mu xëyaat ci suba si woo ma téléphone ne ma ana xaalis bu mu envoyé ma ne ko yow demal nga toog yow xam nga ne Ousmane Sonko yorul sax dërëm bu lu suukar baraada bay maye ay ay ay lii koo xamante ne du maye du saraxe ci kii rek laa ko gis mu ne ma ah, kon baax na après moom mu ne ma kii de man bàyyi naa ko ay su ma demoon wax sama papa ne sama papa nga xam ne dafa bëgg Ousmane Sonko. su ma demoon wax sama papa ne tëral naa Ousmane Sonko gis ko mu def yaramu ne sama papa amaana sax def may xaañ jaasi ma dee benn yoon parce que du ma gëm ma ne comme xam nga ko rek baax na lii ko foo ko yëkkati kenn du la gëm mu ñëwaat li nga xamante ne mooy le 2 février le 2 février sama patron nee na dama doon wax téléphone dama doon wax téléphone mu dégg ku may waxal ne kooku di naan ba Ousmane Sonko ñëwee. avant le 2 la le première la ma la ma kii nii sans patron woo téléphone ne ma ay weeru 17h mu ne ma fekk sax daa amoon ku nekkoon si porte bi sonné ma tijjul kooku ba duggal ko mu woo ma téléphone ma daw jël parce que maa yoroon annonce yi jour boobu téléphone yi maa ko yoroon ma wuyu ne ko taafi naa loo wax mu ne ma lépp loo jàppoon bàyyi ko ku bees ki ne ko mu maase kooku nga tijjel tonton Ousmane Sonko mu ngi ñëw ma ne ko bàyyil mu ma jox ko ku bees parce que instant bii nii am na ku ma waxtaanal ba pare te moom laa war a maase bàyyi mu jox ko ku bees mu ne ma noonu instant bii nii nii liggéey bi dafa tar te fi ma nekk nii dama koy fay maa ngi nii crèche te damay fay crèche journée cinquante mille la ma wax laay fay crèche ma ne ko kon baax na ma dem tijjil ko mu ne ma cuuraayal nga bàyyi porte bi noonu mu nee na mu ngi si porte bi day gaare cuuraay nga bàyyi ko après ma dem def cuuraay pompe kër gi tijji porte bi bàyyi ko mu amaat keneen ku sone ma tijju mu nekk naaj bi ma envoyé waat ko message ne ko du moom de naat bi moo ñëw mu ne ma noonu mu capturé message bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko ndax doon wax ne daf may défier envoyé ma ko message mosuma toog fenn ne Ousmane Sonko daf ma envoyé message mosuma toog fenn ne Ousmane sonk yor naa numéro ko dañuy jokkoo pour mu leer capitaine ba ma demee tamit ci euh, gendarmerie bañ ma laajee dama leen wax ne mosuma envoyé message. mosuma woo téléphone mosuma déggante ak mosuma dégg fu muy waxee téléphone tamit loolu laa fa wax après message bi nga xamante ne moom la ma Fina kii nga xamante ne mooy Fina di Estella envoyé message capturé ko envoyé ma ko ne ma noonu non loolu mënul nekk ndax ndax Sonko léegi moom sa waa Sonko léegi sama lépp ngi sama téléphone ne ma Sonko léegi moom bu la waxee lii rek xamal ne que léegi dafa commencé di wax loo xamante du am pour bañ a jaar ci moo bi nga xamante ne jubul. man ne ko ah boo xa boo ci xamee dara de nga wax ma mu ne ma kon baax na man de def ma envoyé message ne ma mu ngi ñëw message boobu laa jël envoyé ko envoyé ko ki nga xamante ne mooy sama xarit bi comme ni mu ko waxee nekk sama xarit nekk sama frère mu envoyé ko ko ne ko garden ma lii parce que sama téléphone dafay fees mu ne ma d'accord muy message boo xam pour ma ma bamtuwaat message bi Ousmane Sonko mosuma envoyé message Ousmane Sonko mosuma woo téléphone. Ousmane Sonko mosuma ko gis fu muy waxee téléphone aussi te mosuma toog fenn wax ne son ko def ma envoyé message wala day dégganteeg man wala day waxtaan ak man loolu moom man maa koy dëggal su ko neexee mu yéexal ci kaw. ci mardi bi lundi bi lañ ma waxoon day ñëw ñëwul ci mardi bi ci ay ay vingt une ñu toog ba ay vingt jour boobu sax ñaari client kese lañ amoon ñu toog ba ay vingt diggante dix neuf heures vingt ma ne. Euh, kii ñu suñu jànq bi ñëw leen ñu jënd ak beneen fii bi ñëw leen ñu jënd reer parce que instant bi couvre-feu bi léegi mu commencé te damay bañ teg ñuy génnaat dinaan lii ak lii ak lii te kenn nekku si kër gi tonton Ibrahima ñëwagul kenn nekku si kër gi te bëgguma ay génn teg teg yooyu mu ne ma ah kon ñëw leen dem ñu dem ci biir doore bi nekk Liberté 6 jënd foofu reer ñëw toog dañoo nekk di reer nekk di waxtaan toog di reer affaire yooyu ba benn instant à vingt à vingt une heures et am ku sone ma wax euh, fii bi ma nekkaloon ma ne ko yii demal tijji mu ne ma mukk duma dem tijji ndax damay doog a ñëw yaa ma fi indi ku bees laa yaa ma fi indi demal rek tijji bu fekkee dee nga dee bu fekkee dee la nga dee boo deewee naa la ñaanal dégg nga ñuy ñuy waxtaan di reetaan noonu mu ne ko yow baax na loolu nga may ñaanal ma dem ba si porte bi ma taxaw ba mu yàgg ma ne ko waa après nga ñaanal ma ngi ko koy yuuxu noonu ma tijji parce que man xamoon naa ne heure boobu noonu. moom kese moo fa mënoon ñëw parce que d'habitude moom kese mooy def yooyu noonu bàyyi ba ay xaaju guddi wala bàyyi ba ay guddi wala bàyyi ba ay njëloo mu ñëw moom kese moo fay def ma dem tijji mu ne ma yow léegi yow booy tijji doo wax sax yow la kan ne ko man xam naa ne yow la di moo tax du ma ne yow la mu ne buñ la fi rayoon nag nooy def ma ne ko ma dee rek est ce que du boobu moo may gënal sax dee moo may gënal mu ne kon baax ne buñ la di buñ ma fi reyoon man de amaana ko damay xarwaale ànd ak yow boobu la ma wax ma ne ko. yaa ko wax de après ma dugg mu dugg ma duggal ko parce que moom mosul dugg ci salle d'attente mu dugg ci biir cabine bi ba mu duggee ci biir cabine bi mu ne ma tey comme dégg naa mu ngi koy waxee ci benn point de presse am effectivement daf ma wax ne tey moom du ma fi toog le de lii mooy li xew le 2 euh, le février mu ne ma tey moom du ma fi toog. doom yi sax passé maase leen ma lu gaaw 10 minutes rek ma dem sama yoon ma ne ko kon loolu nga wax bàyyi ma walla beneen fii bi ñu defal la 4 mais bu gaaw nga xam ne dangay ngay teel a dem mu ne ma waaw après mu ñëw ma woo beneen fii bi ne ko dugal nga maase ko mu ne ma yii yow kii ñemewu ma de mën ne ko lan ngay ragal xanaa du nit comme yow mun ne ma yow gisoo sa kanam bi nu mu ko changé ça veut dire kii nii jubul walla kii soo mu ne ko yow dugal rek du man maa la fi indi man maa la indi fii pour ngay liggéey. man du ma la duggal si lenn loo xamante ne da lay gaañ mu ne ma waa baax na mu ne ma mën ko moom sax wax na ko ci interview bu nga xamante ne face to bi ñu amoon ak kii nii kii nga xamante ne mooy capitaine Touré mu ne ko aji def maa wax ne melal ni comme si xamoo ne Ousmane Sonko la noonu laa ko wax melal ni comme si client rek bu dugg comme si du moom comme si du dara melal ni comme si client la boo xamante ne daa ñëw pour maasam mu ne ma kon baa baax na après si la dugg nuyanteeg moom génnaat. jox ko serviette man ma dem di di sotti huile yi pour indi ko ak li nga xamante ne ndey eh, kii kii wax na ko kii Ndey Xadi Njaay ne bàyyi saa fa ñëwee frotté lay indi moom lañ koy maase pour wax ne man sax loolu noonu xalaatuma woon sax défier li nga xamante ne moom la finaa kii nga xam ne mooy taa Fina wax parce que respect bi ma am amoon ci moom xalaatuma woon sax dem gendarmerie di fa wax ne Ousmane Sonko mosu faa ñëwee ak li nga xamante ne mooy lii nii forote ma dem mais ba laajee kii nii ki nga xamante ne mooy beneen fii bi mu ne dugg naa c'était la première fois may maas Ousmane Sonko mu ne leen dugg naa man maa indi serviette aji moo indi huile te loolu moom boobu bugguma woon sax parce que sama patron waxoon wax toogoon nañ waxtaan ci ba pare parce que defoon nañ face to face ba mu wax li bi ma bañ koo défier bañ ko juste pour bañ koo indil problème ma ne ko woon léegi ba ñu demee fenn capitaine Touré ne ma lan moo tax waxoo ma ne ko parce que bugguma woon indi ay problème bugguma ko woon sax créer ay problème moom mi nga xamante ne mu ngi taafina parce que jigéen la boo xamante ne day daan dooleem te doomam mu ngi fee ci créer te instant bi dafa war ni man su ma sañoo du ngeen ko woo mu ne ma baax na ci la absa kii absata absata ba wax ne carrément que moom moo indi sarvette man mi maa indi huile bi après si lañ koy maase ba mu yàgg mu génn ci lañ fa des li nga xamante ne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 ñoom Ndeye faatu ndey Ndeye ndey Ndeye njaay ak Ousmane Sonko dañuy déggante daawoon naa si douter parce que si si ay biiru wax Ousmane Sonko daf ma doon wax yoo xamante ne daf may doon ay doute pour ma gëm ne moom ak ki nga xamante ne mooy final di Estella dañuy déggante. après si la ma si la ma ne man xam naa ne doon nit ku bon sama téléphone bi jour boobu nu sax pour bañ koo pour am ay soupçon wala quelque chose mu bañ a am ay soupçon amaana maa ngi koy enregistré affaire loolu appel whatsapp laa ko woo boobu noonu mu ne ma aji ma ne ko ah mu ne ma xam naa ne doo nit ku bam li tax ma wóolu la bàyyi la sama kër di fanaan hôpital bàyyi la ak sama jëkkër xam naa ne doo nit koo xamante ne da ngay caaxaan wala nit koo xamante yow nga xamante ne chaque jour ma ma la ma wax la ci fii nii fii nii ñëpp di dégg chaque jour ma ne la yow lesbienne nga chaque jour ma wax la ko dem na sax ba ci capitaine toure ne ko kii de lesbienne la moo tax bu ma déggee ëmbam wala bu ma déggee leen ni daf may jaaxal parce que aji mii damay dégg sax muy wax téléphone di wax ay wax yu garaaw ci ay jigéen wala affaire yi ay jigéen rek lay gis mooy waxtaan te testé naa ko ku ne ndax fi naa noonu lay def bu amee fii dalay lay testé ak ay clients yoo xamante ne dañoo am xaalis ko ñooñu pour tëddee la xool ndax taxawaalukat nga wala liggéey moo la fa indi ñooñu mu ñu la lii ni proposé ba proposé la ay 200000 ne ma aji proposé naa la ku nekk waaye mosuma mosu mosuma gis li nga ma gis ci yow mosuma koo gis moom moo ko wax ne ma mosuma xam mosuma am fii bu jubee ni yow moo tax ma am sañ-sañ bàyyi la sama kër nga may liggéeyee te li nga may liggéey yow yëpp ma wax la leen client bu fa mënti ñëw bu demee mën naa mën naa laa wax client yi fay ñëw yëpp te bu ñëwee nombre bi nga xamante moom la ñuy fay nombre boobu ngay verser sama jëkkër ci guddi gi mën na ko fina mënuñu mënuñu dëkk di tooñ yàlla ba pare teg si di def loo xamante ne mën na ko gis nga massage bi ñuy def moom ah mu nekk tooñ yàlla la parce que lii nii lii nii binduñu ko ci na dafa légaay wala binduñu ko ci fenn mu ne xam naa loolu ku wax ne massage baax na da ngay wax lu la neex mu ne ko mu ne waaye xam naa ne doo nit ku bon xëy na li ndogal la rek boo xamante ne daf laa waroon dal la mën na ko man kat instant bii sax dama bëgg a dem pour débrager wu une bonne fois pour tout parce que lii nii bëgguma sax mu jëm kaw ñëpp kenn di xam ne dama ëmb wala lii nii mu ne ma pour ngay dem jarul ngay dem jour boobu moo ko yekkati ci kawam waxaat na ko ne ma jour boobu noonu jarul ngay dem ne ma muñ nga jël koka nga def si trois cuillères de kafe nga naan ko nga tëdd mun nga tëdd après tonton Ibrahima dina àll lii nii tonton Ibrahima sax bu mu bu mu xam ne sax yow instant bi loolu ngay def wala bu mu xam ne sax dangaa ëmb mën na ko waa baax na. amul problème jël leen mu ne ma dindal instant bii nag couvre-feu jot na noo koo def mais mun nga xaar ba suba nga bañ a dem seen kër di ànd ak sa yaay wala sa yaay di la xamal wala affaire bi mun nga xaar nga jël coca ak ñetti cuillère kafe nga dindi ëmb bi su ko defee problème du am kenn du la xamal mën na ko waa kon baax na ba léegi waxaguma ko ki nga xamante ne moo ëmbal ñu xaar ba ci suba si non su même jour bi su même jour bi ki nga xamante ne mooy jëkkëram fekk ma ci kaw ma toog parce que tellement dama angoissé woon mu fekk ma ci kaw ma toog mu ne ma carrément aji man xam naa nit ku baax la te li tax sax man ma am confiance ne yow nit ku bu baax nga yow danga ñu ko woon fi naa gaawut a am kenn confiance ci moom te yow kese c'est la première fois ak ki fi bañ tëyee bañ tëjee suñu cabine bi ba léegi ça fait trois ans la moo xaw ma quatre ans fi naa mosul am confiance comme ni mu envie di bàyyi këram nii dem. jox ko benn xale boo xamante ne bokkuñu dara mu koy liggéeyee di ko weesu xaalis ma ne ko ma waxaat ma ne ko li ma wax tata Fina laa lay waxaat soxlawu ma dërëmu nit mu ne waaye kër gi de mun nga fee toog ba am doom moom tonton Ibrahima moo wax loolu mun nga fee toog ba am doom jarul ngay dem seen kër wala yow sax yow nga ne da ngay dem sa kër sa kër ñoom yaay kan moo lay yóbbu ma ne ko ah man de xamaguma kan moo may yóbbu mais maa ngi woo sama frère bi ba xool parce que jotaguma boobu ba léegi maa ngi koy woo jotuma ko.